oustaz Maodo Faye euh, gannaaw bi ma delloo di la nuyu di la bëggee di la ziar nañu ko defee saa su ne naka nga yeewoo oustaz maa ngi laa ziar maa ngi lay ziar bu baax naka suba si di ñaanal sant yàlla ah, di oustaz yaa ngi waaj di takk say verre instant bi waaw boo demee de waaw dama koy expliquer auditeurs yi mbokk yi ñu xamee ko noonu waaye yow la nga waxoon rek loo dégg mu siiw. bilaahi loo nettali waaye laay moom. tonton Aada ak Sylla mu ñëw ñoo ma ko jàngaloon. <laughs> mais amati mbégte ah oustaz. waaw mais maa ngi lay sant bu baax. jërëjëfati waay di la di la gërëm bu baax. a baax ah, itam et puis di la wax joyeux Noël. waaw joyeux Noël waaw waaw. Oh. waaw déwénati. Ah, waaw ah waaw ñëw na fi kay waaw waaw tey la ah, Noël de waaw ah, ah, tey la Noël de waaw feet la de bu ko defee oustaz nag ku ma romb tey naa la ne joyeux Noël waaw waaw loolu de lu baax la bu ko bu ma ko bàyyi déedéet oustaz bu ma ko bàyyi dama ko def at bi yëpp de waaw moom kay fii ba 31 moom ba muy premier janvier ko romb rek ne ko eh mais mën naa dem aussi at atum 2021 yëpp ku ma romb ne ko joyeux Noël déet da bañ ñu da ngaa dof <laughs> tam ñu ne waaye sa waaye moom kañ la départ. Ah, waaw waaw waaw <laughs> mais ma dégg laa bu ma la euh, bëggee ziar la. Euh, dama la dencaloon surprise. xam nga 24 euh, décembre bi. Mm. dafa doon fu mu tombeel jeudi bi nii ñu nar a def réveillon. gannaaw bi nga xam ne sunu mbokk chrétiens yi catholiques yi danoo fas yéene def seen julli guddi gii yëpp. Mhm. ak ñaan yi ñu nar a def. Mhm. mu tombe nag ak guddi ajuma donc mu nekk ñaari benn. benn guddi boo xam ne ñaan yooyu noonu euh, ngay ngay faral yow da nga koy bëgg lool lool ñaan yu bari yooyu noonu mm-hmm. donc euh, bu am bu ñu amee guddi bu mel nii euh, dafay neex lool ci Sénégal loolu waral ma ma ma denc la benn surprise uh-huh. oustaz ma ma bàyyi la ak moom ne ko allo rek allo allo Hadj <laughs> Oustaz Alioune Sall maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. maa ngi lay delloo ziar di la delloo nuyoo. ah kon lii la doon surprise bi kon maa ngi defoon. Eh, xam nga ni lii bii lay surprise neex na de. ah waaw lool eh? lool ah déet moom. Oustaz Alioune Sall ci ligne bi. waaw déet eh? moom moom moom. bilaay walaay. moom sama mon maître. wallaahi. moom moom moom sama maître. wallaahi wallaahi. moo moo tax mbettaange euh, gi neex na ma lool. ndeysaan ndax man jotoon naa ne sax leneen ngay wax. ci kii waaye comme moom la moom. tarkala kon kay mën nañu bàyyi waxtaan yi moom rek. déet déet moom moom euh, amul jot noonu. waaw euh, itte gi may ko ko man maa ko forcé ne ko may man rek benn cinq minutes. rek d'accord sa kàddu ci réew mi dafa am solo. ak ma cee d'accord waa kañ ak ma cee d'accord jërëjëf papa maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi lay delloo ziar di nuyu Hadj Malick di nuyu ñi nga xam ne ñu leen déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëpp di jaajëfal euh, mboolem ko xam ne ki yaa ngi ci rajo bi. jërëjëf oustaz euh, euh, Alioune Sall dégg nga li ma tàmbalee léegi ak oustaz Maodo Faye ne tey ci guddi mbokki catholique yi danoo fas yéene def ay ñaan ci église yi wante tey ci guddi it mooy guddi ajuma comme tous les jeudis te xam nañ ne guddi ajuma ku ko wax julli yeeg ñaan yi également naka nga gisee loolee ci ci Noël deux mille vingt bile waaw day day ñaar yu bokkut nag Nicolas. Mm-hmm. day ñaar yu bokkut. Mm-hmm. bu ñuy jàngal xaaj Malick Maodo mbirum calcul. Mm-hmm. dañ ko daan wax nangami gëleem. Mm. plus nangami xar duñ ko wax. Mm. nangami bëy plus nangami nag duñ ko wax. Mm. kon ñaar yi dafa bokkut. waaw kon comme bokkuñu nag. duñ leen mën a boole ñoom ñaar ñun ñëpp ñu ànd di ko def. Euh, ñi nga xam ne ñoo koy feet tey seenu feet la ñoom. Mhm. ñun suñu feet weesu na. Mhm. léegi nag ñun amuñu feetu àjjuma jot ñu feetu alxames jot ñu feetu. Mhm. bokkuñu daal li ma bëgg a wax. waaw mais euh, man li ma ci itteel mooy guddi gi nga xam ne euh, communauté ñaari communauté yooyu dañ ciy fas yéene ku ci nekk sa côté ànd di ñaan man loolu moom ma ci gën a itteel nag nga gisee aspect boobu noonu. ñu passé benn guddi boo xam ne ku ci nekk sa côté da ngay ñaan ngir réew mi. su boobaa comme ñun amuñu woon guddi spécial goo xam ne gi dañ naan rek bu ñëwee noonu ci def ñaan. Mhm. ñoom am nañ guddi goo xam ne moom ci lañ koy def ñun euh, daal xam naa ne xaw naa wute tuuti. Mhm. wute gi daal moom moom man mi tam moom jaaxle ni la loolu jaaxle ne la ma <laughs> noonu la ma lii jaaxale. Mhm. donc euh, yàlla na yàlla nangu. amiin suñuy ñaan. Uh-huh. ñoom tam ñu nekk ci seeni ñaan. Uh-huh. waaye eh, comme yëf yi bokkut ñaar yëf daal. xam ah. naa ko nekk rek na na ca la nekk te góorgóorlu ca. waaw ah, kon kon xaaj mbàkk nag ci fajar dégg naa ko man du yàq dara nag. waaye ah. du yàq dara wax na dëgg. na dëgg. Eh, ku ci nekk daal na waaye nag. Mm. ñu bañ a fàttee ñaan ci feebar bi yéen a fi jóg. Mm-hmm. nekk ca seen barab yooya. Mm. bu ñuy ñaan ñu ñaan feebar bi na fi jóg. Mm. ñun bu ñu nekk suñ kursi yeeg suñ der yi. ñu ñaan feebar bi na fi jóg. Mm-hmm. su ko defee bu seen ñaan nangoo mu jóg fi hmm. bu suñ ñaan nangoo mu jóg fi hmm. waaw ku ci nekk rek bu ci kenn fàtte ci loolu hmm. la ci tegee mooy ñaan at mii génn nga xam ne ñu ngi koy génn mii di ñëw yàlla bu mel ni moom bu namee naqari bu namee ñame ñaaw yàlla mel ni daaw jéeg kon ah, kon déwén bu namee ñaaw yàlla na mel ni daaw jéeg daaw jéeg loolu dafa fort de waaw xam nga dinaa wax yàlla mel ni ren waaw ren moom yàlla bu ko mel déedéet kon nag yàlla mel ni daaw nga am mel ni daaw jéeg. Eh. ndax daaw jéeg moo tax ne moo tax ne ren. quand même. daaw it moo dàqee ren. bilaay walaay. kon nag nit ñëpp bokk ñaan ci <laughs> sawet moom la fi jóg rek. wallaahi. bu ñaanee ba nappi nag. Eh. ñu def li ñu docteur yi sant. Mm. takk suñuy masque. Mm. sorente. Mm. waa ñu joxante loxo bi. te gëm ne feebar baa ngi fi. waaw. lii daal moom am na solo lool. am na solo. Euh, Nicolas. am na solo euh, Pape euh, actualité lii fi mujjee wàcc ci information yeeg yooyu topp nga ko ñu ngi laa topp ci plateforme yeeg yu ni mel. bokk na ci yi ma bëggoon laata mala la nga continuer sa sa ay activité mhm. bokk na ci actualité yi ñu mujjee suivre mooy histoire def naa loolee ñu wax yonant bu bees bi ñu gis Sénégal loolee bëggoon naa ci am gis-gisu oustaz Alioune Sall. Euh, wal waaw. may bëggoon naa. Mhm. ngeen dem wax yonent bu bees. ah ñu bañ ko wax. bu leen ko waxati ak nouveau ah. prophète bu leen ko wax ah ñu bañ a wax nouveau prophète. parce que bu ngeen bëgg yonent bu bees dafay mel ni reconnaître nga ne yonent la bu bees. ok ok da di wax ne kii woote ne yonent la. kii woote ne yonante la. waaw uh-huh. ah, kay waaye bu ñu nee yonent bu bees wala. Mm. parce que journal journaux yu bare ba journal yu bëree bari mm-hmm. ak site yi loolu la wax. tout à fait. le nouveau prophète. Mm. loolu ëpp naa wax. Hmm. loolu ëpp naa wax dañ naan kii ne kii ne yonent la. Hmm. yonent mi daa waxoon ne maa ngi ñi di dem balaa addunaa tukki dana am weer nit ak ñett jëm kaw ñu wax ne yàllaa leen yónni ay yonent lañ. Hmm. na jan leen weddi ñoom ñëpp waaw loolu la waxoon. avant mu fi jóge rek am ko feeñ. xaj xam na ko Musaylima la tuddoon. ñu koy dàgganteel ak Kazzab. waaw moom moo moo njëkkoon a tàmbali fii yonent bi tudde ko fenkat Musaylima mi nga xam ne fenkat la mu tàmbali fa nag ba yom la xiyaam fii ne xaaj Maalik moom mu ko dem am na ko wax loolu man mi am na ko ma wax kenn am na ko ko wax uh-huh. ñuy wax rek ba fi ne mat nañu fanweer ak nangam donc di wax naan yonent ba bees la ëpp nay wax nañ jubanti wax jooju di ko waxee beneen façon bokkut ak yonent bu bees la hmm. day woote ak yonent waaye du ab yonent hmm. waaw day woote ab yonent waaye du ab yonent. Mhm. léegi euh, papa naka la ñu mën a jàngatee euh, loolee ci jamono yi ñu ne. jër jërëjëf xam nga àdduna moom toujours nii lay mel nit day am ay intérêt fee wala mu am ay intérêt fii. Mhm. am na ñoo xam ne buñ dàqee àdduna mënuñ koo jot dañuy ñëw ci diine làqu ci pour jot ci àdduna am na ñoo xam ne buñ xëccoo pouvoir nuñ caa jot day ñëw làqu ci diine pour am ko. Mhm. comme diine nag dafa naqa dafa dafa doon marché boobu marchandise mi ñu bari nañ koo bëgg làqu ci pour génn ko day bari waaye feeñ feeñ jamono daat ne yàlla mooy yónni nee na alxuraan ji la ñu jàngloo julli façon julli ji la ñu julliloo kaaba gi la ñu loolu kenn loolu ëpp naa wax sax waaw loolu ëpp naa wax hmm. waaw bu ko hmm. ku ne ci ñun yàlla mu yónni rek nu man ne ko danoo gëm yonent ba noppi. Hmm. ba pare mayu groupe. Hmm. comme moo tax mu mu ñu laa gëm. jàmm na ñooy. Hmm. te Nicolas ku bëri conseil rek jaaxle. ku bëri conseil. jaaxle jaaxle. ku bëri médecin dee. ku bëri sëriñ dof. maanaam maanaam maanaam bab ku bëri conseil jaaxle. moo ne mooy kuy fab sa nopp ku ne nga jox ko ko. waaw waaw waaw. léegi nga jaaxle. est am déet. ku bëri sëriñ. dof hmm. ndax bu la sëñ bi waxee lii bee wax bi la wax la le hmm. ku bëri médecin dee ndax benn médecin du la faj te boo demoon la ku la bindal garab gi est-ce jërëjëf am na solo oustaz Alioune Sall léegi dama lay bàyyi juste pour euh, une dernière intervention ak oustaz Maodo fay quand même. Uh-huh. Euh, ngeen ngeen wax tuuti ci lii nga xam ne moom mooy actualité depuis plusieurs mois maintenant léegi ñu ne at sax muy coronavirus euh, oustaz Maodo fay ak oustaz Alioune Sall ban gis-gis ngeen am ci doxalin bi ma bàyyi leen yéen ñaar rek ngeen waxtaan ci. wax xam naa bu xëy na bëgg ko téye lu bari waaye moom li mu wax daanaka man dama cee mënta teg dara ndax loolu mu tontu awalan ci wàllu kooku naan. Euh, ab yonent la moo tax léeg moom mii day faral di wax ne Dakar euh, wolof yi waa Dakar wax na dëgg ndax ku dégg wolof doo wax mukk ne ab yonent bu bees ndax boo ne yonent bu bees rek nangu nga ak hmm. yonentam moo tax ngeen war di ma rectifier ci samay olof waaw waaw de ah, loolu di <laughs> loolu di de loolu Nicolas maanaam ñi féete ñi féete gox yi ñooy ah. waxee noonu ah. waaye noonu njàmbur njàmbur yeeg moom ku mel na moom mi jaar bawal jaar njàmbur foofu yëpp euh, moom dana xam ne am na waxin kon kooku waaw loolu wér euh, mm-hmm. li ci des itam wax na ko ndax bi fi yonent bi jógee mu zaylimatul kazab moom moom moom danaan bañ ba daan wax naan ay ay moom dafa doon wax naan jibril ngi ñëw ci man di wàccee ay alxuraan waaw waaye nag sunu borom moom ku am ku ku mën a àtte léegi nag ñi nga xool ba xam jan alxuraan la ñuy jàng defe naa ne ju yonent bi jàng ba léegi xam xam nga lu mu ko tegoon xaaj mm. dafa mu jàng musil ma bu jaay am mbaam waaw boo xaalee ba juboo waaw bi ni ma ci kër gi du ma fekk ko mbaam <laughs> ab xaj la ñu fekk mu yeew ko. astaghfirullah azim. ñu ne ko yow yaa mën a fen mu ne mën a mbaam laa fi bàyyi woon. soo ñëwee ne ko wecc ma. waaw. mu ne am naa weccet waaw nga ne ko def defal ma ko deux deux billets cinq mille. waaw. mu nga koy wane deux billets cinq mille ci posam. waaw. ci misaal. Uh-huh. bu lambee deux mille cinq cent la fekk wala deux mille francs. laa illah kooku nag. loolu xalagu suñu borom léegi fen yëm fen ci ne yàllaa ko yónni. topp ko ba far lu mu wax rek mu di fan suñu borom yonent bi tudd ko alkazab alkazab waaw waaw waaw laanatullahi ali waaw tabaarakallaahu kon nag kon nag ñoo ko déggoo moo tax natt nattu yàlla yooyu lay ak mbugali suñu borom yooyu lay dal dal ci kawam euh, lii nga xam ne itam euh, oustaz wax na ko léegi itam mu jëm ci wàllu feet gi noonu noonu dong lañ ko mën a gisee nag itam ndax itam euh, mënuñoo tudd giléem ay xar ak i béy yëpp nu daal di koy boole ci benn saak fokk mhm. rek mu am ñu jëm nee eh. amit ñoo xam ne nii dañuy dañuy dañuy dañuy xaw a jëm nee eh, eh. waaye loolu loolu nag moom noonu rek noonu rek laa ci mën a teg waaw mënu ma cee teg leneen di gis nga est-ce oustaz oustaz euh, euh, euh, Maodo Faye gis nga suma suma Noël bi ni mu ala daw mais waaw ah, oustaz dama bëgg dama la bëggoon paas keneen fu mu nekk nii non grand dugal dugal rek dugal rek. <laughs> Ah, ah, Aziz Samb lay wax Aziz Aziz Samb day bañ micro. te moom xam naa ne fan yii moom day xaw a kii. waa léegi ñëwal fii rek nuyoog nuyoog Alioune Sall <laughs> non kaay nuyu ko rek nuyu ko ziar ko rek. <laughs> déedéet déedéet. gàntal na waaw mu ngoog nee na daf ko bëgg. waaw kon nag mu ngoog kon jeex na <laughs> kon euh, euh, oustaz Alioune waaw waaw papa maa ngi lay bëgge euh, di la ziar di amati mbégte di kontaan bu baax a baax a baax. jërëjëf ci li nga ma dama am ñaari nikola muy. bu Walf ak rek bu Sud FM. bu Walf ak bu Sud. <laughs> mais xam nga li ma ci jaaxal. Ah. man saa bu ma la fekkee sa sa bureau. fii ci immeuble bi. ma fekk si la cinquantième étage nga ne ma chocolat. waaw ah, parce que xale ba kat moo ne ni so Nicolas moo dàq Sokola. <laughs> te muy dëgg <laughs> kon kon papa maa ngi lay bëggee bu baax a baax. amati mbégte jërëjëf yàlla na nga fekk déwén. waaye amiin waay nu fekk déwén te weesu ko. amiin amiin. jërëjëf jërëjëfati oustaz Alioune Sall toujours un plaisir que voilà di discuter ak moom euh, te philosophe gi mu doon ak euh, waxtaan gi nga xam ne saa su ne day toucher toutes les couches de la société euh, et même au-delà donc ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm ak ité bi mu ñu may également oustaz Alioune Sall la woon en direct oustaz Maodo nee naa la sànq tey Noël bi dafa alaa daw me waaw surtout ñu ngi nuyu Aziz waaw Abdoul Aziz Samb waaw moom eh. fekke na yëf yi nga xam ne moo ko moom parce Euh, moom moom bokk na ci ñi nga xamee ne. Mhm. dañuy topp émission bi te lii dundal émission bi aussi daf ci teg tànkam. Mhm. loolu man li may wax xam naa ko bu baax a baax. Euh, fan yi rek am na ku ma woo. Mhm. di ma wax naan ma man daal ni ma bëgg a xamee Aziz Samb war nga maa booleeg moom nangam nangam. ma ne ko nag paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. waaye loolu li ko li ko def mooy. Euh, fii lay toog nii. doo ko dégg sax souvent muy téléphoné ah. mais ñun ñooy dem wala mu woo ñu wax ñu loo xam ne fii la ñëw daal ne nangam ak nangam ak nangam ñi am soxla sangam. ngeen jox leen ko ngir yàlla. wallaahi ah hmm. te it moom du bëgg sax après feeñ ci mbir moomu le hmm. loolu la ñuy wax alaaniyan wala nga def ko sirran. Hmm. ndax alxuraan wax na ne am na ñoo xam ni dañuy fab seen alal di ko joxe. c'est le ba noppi sax ñoom après kenn du xam ne sax joxe nañ ko. nag loolu bu keroogee dañuy am payu yàlla. beneen bi ci tegu tamit euh, sëriñ Pape Malick si day nit ku baax. li sama sëriñ moom. moom lu baree baree bari sama digganteeg moom moom moom moom moom moom moom moo ko def te loolu loolu loolu su ma ko waxul woon ñu baree bari duñ ko xam mm-hmm. parce que euh, ni ma demee ci tarixa bi ak yu demee noonu mm-hmm. kon nit ñaare suñu mm-hmm. borom dana yaatal ay mbiram mais ñi mu dëkkal duñu xam ne yàlla yaatal na ay mbiram yonent yi yàlla yónni woon ñëpp ñi leen njëkk a kontar mooy ñeen dëkk ba ci sax suñu sëriñ si ah muy alaaji Maalik muy sëriñ Tuubaa muy ñeneen ñaare say bokki bopp Hmm. dañ lay réeree. Hmm. dafa am benn philosophe boo xam ne damaa yaakaar ne xëy na damaa jiitu askan wi ma nekkal. Hmm. loolu loolu day faral di am. te yàlla mooy doxalee noonu. moo tax mu yëkkati gii mu yëkkati ay tànkam ba dugg ci studio bi man rëy na ci man lool. rëy na ci man lool parce que euh, ki nga xam ne dafa am faso faso ga tax ne la kaay ñu bokk ko. bis bu amee ay leneen nga nga gën a kontaan. Euh, te it xam naa ci moom gis nga man nit. la yonent bi waxoon su ma ko gisee ci nit. dama koy nangu te moom gis naa ko ci moom. Hmm. yonent bi nee na ku ngeen gis muy julli. Hmm. jàppale na jullit la. te man damay dem ci juma. Hmm. fekk ko mu toog ci roq bi yore kurusam toog. et puis day toog foo xam ne fii fële kilifa yëpp di toog. mais day gis mu beru ci biir juma ji yore kurusam bu paree gën dugg këram. waaw léegi yonent bi ne bu ngeen gisee nit mu dugg ci jàkka di julli julli rek la wax. nga xam ne koo xam ne que nag yow chaque vendredi. da nga ñëw fekk ko mu toog te mm. loolu gis naa ko ci Aziz Samb mii mm. kon ñun dañuy jàpp ne julit la tey mm. tamit nit ku baax la itam loolu loolu moom moo am waaw loolu la tubaab di wax euh, humilité c'est important xam nga wax mooy indi wax euh, Aziz Samb ba ñu jokkoowee dafa am ci lu nu nekk yow moo la formé ci fa nga doon jaar xam nga xam nga wala non dama dama jaar Oscar des vacances loolu beneen histoire la mais euh, jamono yi ñu ne ah. dañuy faral di jokkoo ci lu bëri ci mbiru àdduna xam naa ne du ko neex sax ma koy wax te man tamit d'habitude du may wax yu ni mel mm-hmm. Euh, mais euh, àdduna ak moo ni euh, ak nit ñi ak voilà jafe-jafe yeeg yu ni ñun souvent qu'on le dise ou pas d'ailleurs on n'en parle jamais mais on rencontre souvent mm, malheureusement ou heureusement pour nous des gens yoo xam ne dañuy ya ci ñun. Euh, di ñu di ñu diis di ñu gis di ñu diis seen soxla ba ci ba ci ñun ñi ñun taalibe yi sax waaw eh, xam nga ñun euh, suñu borom dafa dogal dañoo yore micro uh-huh. donc euh, du lépp la ñuy mën a waxtaan mais bu ñu dajee ak ay nit yoo xam ne dañuy nekk ci jafe-jafe des fois day nekk jafe-jafe yoo xam ne uh-huh. yow sa wàllu bopp daf dafay tëj sa bopp man toog naa benn jour di di di jooy te nit yi ñu lu may jooy parce que j'ai rencontré des gens yoo xam ne dañ nekkoon ci situation yu difficile yoo xam ne uh-huh. ñu wax ma ko man ma mu leer na ma ne bu dee man kese bu doon man kese ma réglé ko ci saa si mais mënuma ci lu bëri. Mhm. may sama rongoñ tuuru naturellement. Mhm. ma jéem a xalaat naka laay def ba euh, dimbali ñooñee. Mhm. ma woo tamit ñi nga xam ne mën naa leen yaakaar ne ñoom itam mën nañ nekk relais. Euh, ndax am na quand nit yu baax yoo xam ne mën nañ def lu baax absolument c'est ce que jos espérer donc ma xaaral ma woo ñi nga xam ne euh, hmm. su ma ay papp lañu te am naa ci ñoom yaakaar ñu daal di cee jàpp bokk na ci papa hmm. Aziz Samb euh, te moom am na benn cas bu ma ko soumettre dernièrement day ko ma wax ko ko mu ne ma dajaleel ma dossier yëpp danaa fa jaar ma récupérer ko ma xool lu ma ci mën ma def ko ci. billaay xam nga loolu it dafa dafa am solo. loolu loolu dafa bokk ci acte yi nga xamee ne. Hmm. gis nga wax naa la fii ne la démb ne la laysal bir hmm. an tubalu wujuhakum xibalal masriq wal maxrib hmm. loolu yàllaa ko wax hmm. maanaam julli gi rek nii ay woor ak yooyu loolu loolu kese kese du jaamu yàlla gis nga acte yooyu ñuy posé noonu ci diggante jaamu yàlla yi noonu ku xamoon yiw bi ci nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ci xettali sa morom bu nekkee ci jafe-jafe daanaka tey jii macha allah laf cet daanaka ay tikke la pour le paradis daanaka moo tax yooyu di ko xeeb. Mm. ndax xam nga. Mm. Euh, dañu wax ne yàlla. Mm. yàlla subhaanahu wa taala dañu wax ne du jóg mukk di dimbali jaam bi tànk que jaam bi mi ngi dimbali yeneen jaam yi. Mm-hmm. est-ce que moom mm-hmm. maanaam tant que euh, maanaam Nicolas mi ngi am ñaar dërëmam ñetti dërëmam. fekk benn Maodo boo xam ne bii xëy nag moom moom taarkal la. mu jox ko ca nangam yàlla nee na du ma jóg may tamit di xettali koo koy def loola. kon nag loolu. Mhm. xam ko lu am solo la lu am solo la. Euh, kon papa Aziz Sam maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. ba léegi bu ko wax deux mots sax xanaa doo nuyu euh, Maodo. sax sax man nuyu ko mais déet waaye naa ko. Eh? Ah, sa sa sëriñ la ok nee na euh, oustaz Maodo Faye sëriñam la. déet kon gannaaw gannaaw jaar na fi daal. Mm. macha allah li ci des moom dinañ ko lijjanti ci suuf. wallaay ndeysaan mais ñu ngi ko ñaanal bu baax a baax parce que nag wax dëgg yàlla moom bokk na ci vraiment. Uh-huh. man su ma su ma ko xoolee damay gën a am. yitte ci li may def parce que jaar na fi RTS nekkoon na fi 2STV ak lam fa def yëpp Oscar te nag bari na say Aziz Samb mais attention c'est-à-dire expérience bi mu am non mais mais gis nga gis nga gis nga Aziz euh, ñu ñu ngi doon wax wax yi Diego Maradona bu yàggul ah wala ma foto bi gis nga Aziz Samb mais wala ma foto bi football ak wax jox <laughs> mais dama waaru mais mais ci àdduna bi yëpp euh, nit ñi mag ñëpp je pense que c'est le seul sénégalais mais oui c'est le seul sénégalais dama ne àdduna bi yëpp nit ñi ki yi gën a mag ñëpp ñi ñuy ràññee Aziz Samba euh, jot naa sekk ñoom euh, am na ci expérience bu bëree bëri bëri ci domaine yu ne. gis na euh, Maradona. Maradona kay la ma woon photo bi. nii mu koy kar Maradona dina ci bal mu koy. <laughs> am na solo am na solo ñu ngi ko ci macha loolu am solo gërëm am solo maa ngi maa ngi jéem lu ma mën aussi man itam pour profiter ci expérience am ah, ci domaine bi ma ne ndax am na solo bu baax a baax a baax maa ngi nuyu la petite doom doom ju baax la am moom itam hmm. jot na noo gisee ci Oscar des vacances xam naa ne papa mu ngi maa wax ne voilà mu ngi suivre suivre études yi et de façon euh, parce que mu ngi am de bonnes notes. alhamdulilah aussi on l'encourage hein. c'est important n'est-ce pas. Euh, bu ko defee kon euh, oustaz dama la bëggoon yóbbu. benn village. laata ñuy dem ci WhatsApp bi. Mm-hmm. Euh, village bi mu ngi nekk ci commune nu Dabadji Sivol. waaw école élémentaire la boo xam ne. amul gor benn benn benn waaw benn góor ci ñaata jigéen. kenn xamul donc en fait li ñu expliqué. Uh-huh. mooy euh, que góor ñi ci boppam ci boobee euh, village. Mm. Euh, duñu leen faral di yóbbu ci école. Euh, dañu leen di faral préféré yóbbu leen ci champs yi ñu bay waaw euh, maanaam kon dañuy faral di wax ne jigéen ñi nañu dem jàngi et cetera maanaam scolarisation des jeunes filles ndekete yoo boobee jamono am na ci Sénégal euh, ci yoo xam ne aussi góor ñi ci boppam dañuy privilégié ñu dem ci mbay bi plutôt ko ñu dem ci école pour jàngi ñu dem ca maatam fekk ji fa Abdourahmane Diène mu nettali ñu loolee xew foofee ca maatam te fii ci Sénégal la ne. Eh, ca dëkk bi di Thiamin bokk ci commune Nabadji siiwal te digganteem ak route nationale bi toll si juróomi kilomètre foofee de njàng mi dafa sooxe ndaxte li dëkk bi rëy rëy benn élève bu góor dong la école bi am monsieur Mbaye njàngalekat la ñetti at a ngi nii mësta am xale bu góor ci biir classe am. école bi maa ngi fi def trois ans ci ren depuis ma ñëw ba léegi nag mosuma yore xale bu góor comme élève depuis ma ñëw léegi ay jigéen rek laa yore sama première année maa ngi yoroon dix huit élèves mais depuis sama deuxième année ñu commencé. mais après dañu continuer am na même ñoo xam te dañu marié man am naa élève boo xam te dafa marié depuis année passée pël yi moom d'habitude dañuy teel a maye seen doom bi école bi nag tabax nañ ko te am na ñeenti classe te bu ñu xayma ñu fay jànge war naa jege juróom fukki ndongo daara waaye nag li ñu seetlu mooy ne ay jigéen kese ñoo nekk ci biir classe yi te bu ñu jàngee juróomi at bu ñu amee fukki at ak ñeent dañ leen di génne dañ leen di may jëkkër ay yu ndaw lañ ku ci mag dëgg-dëgg ay 14 ans mais nag leen takkal saga rek après ñu yóbbu leen ñu dem sëy ji bu dee xale yi moo yi ñu ngi ci école alxuraan bi wala ñu xoolee dañ leen yitteel dëgg mooy seen jur bi mooy seen trésor ñoom jur bi mooy seen trésor quoi njàng mi nag mu ngi sooxe bu baax a baax ci dëkk bii di Thiam ba tax na ñu bëri njort nañ ne bu nguur gi deful dara école mën na faa tëj ndaxte ren ji directeur ba jot naa bind lu tolloog ñaar fukki ndaw ak ñaar wante yooyu la ndaw dañu leen a mujj delloo seeni kër ndaxte école bi dafa manqué jàngalekat. mu nekkoon Abdourahmane Dieng fii ci Matam pour Sud defe jërëjëf euh, sunu ndaw la ñu toogal ci euh, Matam di Abdourahmane Dieng euh, oustaz dégg nga loolee xew foofe foofee ca Naba ji Siwol. waaw dégg naa ko xam nga loolu nag yàgg na ci bët gànnaaru réew mi. Mhm. maanaam réew mi dafa am ay aada yoo xam ni yii ay aadaat sax laay wax yu bari yoo xam ni ay xeeti ay xeeti cosaan la yoo xam ni benn bu ci nekk dafa am nu muy nu nu nu muy doxee. fa tabaarakallaahu eh, ñoom loolu dafa bokk ci seen aada. Mm-hmm. moom sax tudd na askan woowu. Mm-hmm. ne nangam ñoom dañuy teel a joxe seen ay doom ñu dugg ci néegu sëy. Mm-hmm. ñenn ñi ñu yóbbu leen ci tool yi su ko defee ñu dem di bay xam nga nag nit ki itam eh, li nga xam ne daf ko nàmp mu nekk tradition day naqaree dindi. day naqaree dindi. am na jigéen yoo xam ne ñi tey ci Sénégal dañ leen di yóbbu ci lël. dañ leen di defal eh, li ñuy wax. dañ leen di circoncis maanaam dañ leen di dañ leen di xarfal ngeen baal ma ci kàddu googule mais Euh, euh, lu lu àddina yàgg yàgg yàgg loo leen sensibiliser sensibiliser ñoom loolu seen c'est c'est des lu ñu fa bàyyi seen maam yi bàyyi la daal mm-hmm. du lu àddina bi moderne moderne ñoom da naan bon ñii lii lañ gëm mm-hmm. yaakaar naa ne loolu mm-hmm. xëy na bu fekkente ne am na ñu ci man a wax mooy kilifa ya fa nekk wala gouvernement bi wala wala wala mais lu naqaree dindi lay doon waaw non wax ñu ñu dindi ko sax mais naka la ñu mënoon def justement la jonction entre euh, bien entendu ñu conserver loolee ñu nekkee te te muy lu lu bien aussi parce que aussi quand même et, et c'est une très bonne chose en plus pour communauté bi euh, voilà euh, gën a jëm ca kanam mais euh, ñu fekk si leen ci loolee ngir gën leen a jox ay outils maanaam ci wàllu xam-xam ah, yoo xam ne aussi na leen jëriñ man foofu laay waxee surtout naka leen mën a fekk see ca la ñu ne ngir gën leen a développer intellectuellement loolu kay ci diiwaan yëpp lañ ko war a def loolu mm. kay fépp fu ndaw nekk rek mm. di dugg ci toolu foofa ña fa ne moo xam au nord au sud au centre ay logistique yoo xam ni daañ ci mën a jëfandiku ngir loola mën a jëm ca kanam loolu bu keroogee lu rafet la comme li nga wax léegi nii mm-hmm. mais euh, loolu ñun mën nañoo jaaxal ñu nekk fii ay Dakar ak yooyu mais ñoom pour ñoom. c'est naturel waaw c'est normal la pour ñoom pour ñoom ma war a am. tout à fait voilà. Mhm. Mhm. ñu ngi leen euh, nuyu bu baax a baax waa Matam euh, Abdourahmane Diène euh, jërëjëfati ci lu am solo loole nga ñu indil ainsi que sunu ndaw yi ñu toogal ci diwaan yi yëpp di participer tous les matins ci émission bu mag bi bile di ndekki li sunu correspondant ya nekk Kaolack Mbacké luga Saint-Louis Thiès Ziguinchor Kédougou Kolda Matam gi ñu jógee léegi feneen ci Sénégal eh, sa su ne Tambacounda fàttewuma leen eh, saa su ne ñu ngi ñoo bàyyi xel di ñu yónnee reportage yu am solo ci gox yeeg goxaat yi parce que na ma koy waxee saa su ne Dakar n'est pas le Sénégal oustaz euh, à 11h35 minutes war nañ mën a dem ca WhatsApp ba de ah. bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo fay mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro whatsapp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53 waaw na ma bëggoon ngeen wax tuuti si différent bu am diggante école privée ak parents d'élèves yi ndax ba léegi daal euh, problème bi c'est pas encore réglé que ni ñoom dix mois la ñuy laaj parents d'élèves yi de scolarité te neuf mois la ñuy jàngale alors dixième mois boobu yàgg nañ ko jël di si lekk di jël xaalis di ko def seeni contre di ko denc bu fekkee am na frais yu ñu war def. ci période mbas bi nañ dem jël xaalis seeni compte régler seeni frais te ñu bàyyi parents d'élèves yi ñuy laaj xaalis parents d'élèves yi amoo ñu leen dara parce que ñoom professeurs yi fay jàngale dañ leen naan les heures payées ce sont les heures effectuées maanaam heure yi nga jàngale lañ lay fay yow professeur bi léegi lu tax ñu bëgg a professeur heure bu mu jàngale ñu fay ko ko heure bu mu jàngale duñ ko ko fay léegi parents yi seen doom suñu jàngul ñu fay leen loolu mooy lan waaw dañu tijji école boo gisee école nu mu bëri business rek la ñuy def. jërëjëf mbokk mi ci whatsapp bi euh, na mu waxee <laughs> présenté wul sax moom dafa dem direct ci vif du sujet <laughs> mais da ngay sentir ne également euh, parent d'élève bu xolam metti la aussi ñor na ko xam nga xam nga euh, li mu wax yàgg nañ ko wax fii ci xibaar yi xabaar yi wax nañ ko feneen itam mais xam nga problème bi mooy Sénégal nag Nicolas ñi fi lekk riba bari na lool te yëguñu ne ñu ngi lekk riba ak a ak a bari ca doxalin ba. Mm. dama ne réew mi ñi fiy lekk riba. Mm. bari na te xamuñu ne ñi ngi lekk riba. parce que. Mm. tout simplement ca jëflante ba ngay jëflanteeg yenn societé yu baree bari. jëflante gi ñuy jëflanteeg seen i client wala seen i doxalin. am na ci loo xam ne mën nañ ko dugal ci xeetu riba. xam nga jàngal ma ma fay la contrat la. Mm-hmm. contrat la n'est-ce pas. Mhm. élève bi soo ko yóbboo bu mu mën a doon ci école privée. bu ko mhm. bañ ba tuddee ko privé. Mhm. école bi dafa am ay charte am mu ne la danaa la jàngal 9 mois parce que 9 mois yi moom la Sénégal gépp di jàng public ou privé. pratiquement su su jàmm rek day am. léegi nga ñëw ne ko man kër sama doom ji damaa bëgg ñëw def CI nga ne ko ah CI kër ku fa ñëw weer wi ngay ngay fay bu weer wi dee. cela veut la jàngalee ba weer wi dee lii nga ngeen signé clause yooyu nga signé mu signé weer wu dee nga fay ko. jàng mi dem bu fet ñëwee mu toog bu weer wu dee nga fay nangam loolu dara nekku ci. waaye nag contrat bi mi ngi mel ne Senelec ak Sen'Eau. su fekkente ne fayuloo ndox mi dañ lay coupé. soo fayee ndox mi kenn du la coupé. kon léegi élève bi su jàngul warut a fay. est-ce que logique pour logique nag laa wax logique pour logique bu fekkente ne nag dañoo bindoon ca ca ca contrat ba ne même bu fekkente ne élève bi jàngul day fay hmm. pourquoi pourquoi duñ fay vacances yi hmm. léegi nag kon bu fe bu fekkente ne dañ ko doon dégg rek ci dëggantaan ci li nga xam ne mooy xel. Hmm. kon dañuy wax ne kaw nit ki boo ko jàngalul waroo laaj xaalisam. léegi nag kon way juri ndongo yi ak guvernement bi ak ministère bi nañu doog ñu xool. Ah, ñu waxtaanee ah, ah. ba seet benn solution ñu. tout à fait parce que euh, oustaz loo ci mënta dégg euh, euh, yenn parents yi ak ñi ngi ko sañ wax sonn nañu trop par rapport ak situation bi. wante it peut-être ñi nga xam ne ñooy jàngale dañu am seeni raison bu ko defee kon ñiy jàngale am seeni raison ni nga ko tuddee bu état bi defee la war ci wàllu waxtaan ak déggoo euh, def naa foofee war na noo mën a déggoo diggante ñiy jàngale ak euh, parents d'élèves yi bu ko defee euh, élèves yi tamit daal di cay daal di cay bénéficier wu du noonu. waaw waaw parce que école privée bi. parce que chaîne boobu il faut mu dox. voilà li link boobu noonu. waaw waaw ñu ñu ñu toog jotaay xool. voilà léegi yi fay jàngale. ñoom mm. dañ leen di fay. ñoom mm. moom école ba nag. Mm. ah mm-hmm. ñoom dañuy fay seen i professeur bu mm-hmm. ay heure la ñuy comme ni ko waa ji waxee ñu fay leen ko mm-hmm. ku jàngalewul kenn du la fay kon ku jàngul nag nan nga mën a fayee foofu la coow li ne léegi nag bu fekkee loolu dañ ko signé woon kon parents yi dañoo war a fay su fekkee signé ko woon nag bokkul woon ci la leen lii ak école bi kon na gouvernement bi jóg ah, ah. waxtaan ak ñoom et puis ñu bañ a fàtte ne la ñu aussi ki di kon nag oustaz ñu dem ca ñaareel ba ca whatsapp man maa ngi wootee Kaolack waaw man li may laajte mooy Eh, damaa gis eh, koo xamante ni day julli julli bi nag moom saar yi da koy tari si kàllaam si kàllaamaam est-ce que suñu diine may nañu loolu parce que man damaa gis vidéo bi daw bu bees boo xamante ni daal ñiy tari saar yi dañ koy tari si seen ma ki nga xamante ne olof la moom tamit su ko neexee saar mun na ko wax si olof wala ki nga xamante ne pël la wala ki nga xamante ne joolaa moom tamit. saar bi ndax mun na ko wax si kàllaamam wala déet damaa gis loolu di moom jaaxal ma lool ma ciy laajte nag lu leer ba xam ndax yéen ñi nga xamante ne yéen a jàng ngeen leeral ci loolu moom. jërëjëf mbokk mi ci whatsapp doon ñu yónnee message am depuis Kaolack fréquence bi foofee bu Sud FM ca Kaolack mooy 94 point 6 euh, oustaz dégg nga lii day fekk si un peu li ñu waxtaanee sànq ak oustaz Alioune Sall. Mhm. waaw <laughs> daanaka sax ñoo xaw bokk ndax gis nga réseaux sociaux yi boo ci duggee. Mhm. ak groupe whatsapp yi ñu bëree bëri ñu ngi koy waxtaanee mhm. effectivement man mi bokk naa ci benn groupe boo xam ne bii. Euh, groupe bi mi ngi tudd waxul jaa al xaq wa zaqal baatilu inal baatila kaana zaquqa benn benn ay alxuraan lañ ko tuddee mais ay oustaz yu bëree fa daje di waxtaan. ndeysaan euh, Euh, tomb bu mel nii dugal nañ ko fa maanaam ndax kiy julli mën na ko wax ci làkk boppam mm. ñii jëm nii ñii jëm na li mm. eh, mais daal li ma ci xam man ci mm. sama gis-gisu bopp mooy yonent bi sallallahu alayhi julli leen ni ngeen ma gisee may julli ñi ko gisul am na taabiyen ne ñu koy àggale ba mu agsi ci ñun mm-hmm. te it gisuñu ci benn xadis yonent bi ne bu ngeen demee seen dëkk ngeen jullee ci seen làkk mm-hmm. su ko waxoon moom ñu def ko waaye man xadis boobu ah, man gisaguma ko mm-hmm. kon a lëng mooy nañ ci làkk bi nga xamee ne moom moo di alxuraan bi nga xam ni moom lañ fi fekkoon démb ak bërki démb mm. ndax euh, jullee ci saw làkk moom damaa mm. yaakaar ne bu fekkoonte ne war naa man a am mm. kon yonent bi avant muy génn dana wax saaba yi na leen su ngeen demee ngeen dem julli ci seen làkk làkk kenn ku ne kenn ku ne ku ne pël bi wolof bi bambara bi et cetera te loolu wax dëgg yàlla xadis boobu man dajeeguma ak moom bu dee am naat kon man ci sama maandu te gisaguma ko léegi nag problème bi mooy li tax ñi ñi wax loolu dañuy wax dafa am ci benn ay alquran bu yàlla di waxee naan du ma yónni benn yonent lu dul ne ci yonent ci ci làmmiñu xeet woowu laa ko yónnee. simplement mais ba tey am na wuute ndax. Hmm. xam nga yonent bi bu mu mën a doon bu ko yàlla yónnee dafa am risaala bu mu ko jox. Hmm. pour communication bi mën a jàll. Hmm. kooku digganteem la ay ak li yàlla teg ci ndoddam pour mu wàccee ko ci kaw suuf mais audience bii nga xam ne moom ngay def euh, sa digganteek sa borom muy julli. dafa am koo xam ne kii moo ñu jàngal charia al islamia muy Muhammad salawaatullahi alayhi ajmain kooku moom nii la waxoon. te noonu la ko fi bàyyee itam kon dañ ko war a bàyyi noonu. imaginer tey. Hmm. pël bi di làkk di julli ci pël man may jël ci séeréer ki wolof kii bambara ki et cetera day dem ba à la limite. Hmm. daanaka pëcc xoo lay jur. waaw ah, jaxasoo yi waaw jaxasoo demee te kee la muy wax kee déggu ko kee. Hmm. léegi nag alxuraan jii ku ci jàng loo mën a jullee. waxuñu la yow miy jàng xul walaaw. Hmm. booy julli euh, tisbaar nga xam lu muy firi yow taril saar bi rek lañ la wax. Hmm. faatiha boo ko mënta firee itam. Hmm. waaye mokkal nga ko jullee ko rek. loolu kay jullee jullee daal ci alxuraan. moom daal man bu ma doon bu ma ko doon digal. na na def loolu te bàyyi ñee la ñuy def ñoom moom beneen affaire la. am na solo oustaz ñu dem ca ñetteel ba ca whatsapp. waaw asalaamaaleykum. Nicolas ñu ngi lay siyaar bu baax sëñ Maodo. ñu lay siyaar bu baax a baax tamit di la ñaanal gudd fan ak wér gu waaw man la Pape Thiaré. waaw dama amoon question rek don laajte suñ Maodo ci alquran waaw dañoo gis euh, yàlla di wax rabul mashriqi wal maghrib waaw mu demaat feneen mu wax rabul masriqayni wal maghribayni lan muy différence bi daal bu dee maghribayni ñaari penku yi ñaari penku yooyu lan lay joxeñ daal waaw lu tax mu wax fii rabul masriq wal maghrib fee mu wax rabul masriqayni wal maghribayni waaw ñu ngi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziare bu baax a baax di ñaan yàlla message yi fekk leen si jàmm bi jaay Seydou Wajot. jërëjëf mbokk mi fa mu tàmbalee neex na ma lool fa mu jeexalee it neex na ma lool maa ngi koy sant di ko gërëm. jërëjëf ñaan ñaan gi am na solo. wax ji tamit am na solo waaw wax na dëgg. Mm. loolu alxuraan la al alxuraan nag tawil bi yàlla rek ko xam waaye ñu ñett ñotti xam nga li mu wax nii. Mm. effectivement yàlla wax na ko ci alxuraan. rabul mashriqayni wal maxribayni mi ngi ci suuratu rahmaan. Mm. ar rahmaan allama alxuraan. xalaxal insaan allamahul bayaan bopp saar la bu mm. waaye ci saar woowu boo demee ba ca kaw ci suuf rek soriwul sax fa bi ayi allaahi rabbikuma tukazibaani mm. rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni fa bi ayi allaahi rabbikuma tukazibaani marajal bahrayni ba yaltaqiyaani baynahuma barsaxun laa yabqiyaani ila axirihi mm. xam nga loolu dafa dafay aju nag ci jant bi parfois ni muy tëddee am na sax fu mu tuddee machaariq maanaam maanaam bu nekkee nag ci digg bi mhm. soleil bi di dem foofu mën nañu ko tuddee noonu léegi nag jant bi mhm. soo déggee wolof da naan jant bi dafa waaw mhm. xam nga léeg-léeg bés bi day xaw a mel jant bi dafa dafa gaaw ñun danaan da jant bi dafa waaw dafa waaw waaw day mel daf waaw waaw benn araf la bu nekk ci alxuraan day mel ne lu xaw a incliné wu nga xam ne bés bi day gaaw loolu taf taf rek ñu ne ñu ne timis jot na loolu dañ koy tuddee <coughs> loolu tamit bu nekkee ci beneen côté ba nga xam ne dafay xaw a mel lu jaar ci digg asamaan si. Mm-hmm. dañ koy tudde mashriq tamit. Mm-hmm. ñaar yooyu nag mooy mashriqayni yi. Mm-hmm. bo masaariq bi nag <coughs> mooy boo xamee ne bii hmm. jant bi nekk na ci digg asamaan si ndax loolu dafay laaj également diggante jant bi ak ak lune bi hmm. ak weer wi hmm. seen ay positionnement ni ñuy tëddee moo tax yàlla tudd ko noonu waaye tuddul comme penku ne comme ni ñu gisee suñ penk yi nii dafa aju ci jant bi xam nga jant bi day day mel luy warangiku di ndax asamsu tajri li mustaqarin euh, mustaqarin lahaa ci suurtu yaasin euh, foofee li wër googu muy wër dafa ànd ak suuf si léegi nag am nañu jant bi waawe mu nekk benn mashriq am neneen nu muy incliné woo mu nekkaat beneen match rek. waaw loolu c'est un peu géographique noonu noonu l'affaire bi tëddee waaw. am na solo jërëjëfati oustaz Maodo Faye tajri gërëm euh, mboolem mbokk yi nekk ci euh, whatsapp yi ñoom itam di leen gërëm bu baax a baax a baax euh, fàttali leen tey c'est li spécial Noël puisqu'on est le 24 décembre et que nit ñëpp ci Sénégal Afrique ak àdduna ils sont sur Noël en ce moment donc on se met aux couleurs et on suit le mouvement et on souhaite un joyeux Noël à tout le monde euh, Oustaz maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. maa ngi lay sant bu baax a baax. di la gërëm euh, daañu dellusiwaat ci gën a leeral masrixey ni boobu la waaye waxtu wi moo nu ko muyul ndax ni jant bi incliné woon ni muy waaye bu nekkee ci côté bee bu nekkee fii bu nekkee ci digg bi masharix bi nga boole leen fa tabarakallahu yàlla yàlla defal ñu jàmm amiin jërëjëf yàlla yàlla defal ñu sutura ci barke yonent bi jërëjëfati kon oustaz maa ngi lay encore une fois joyeux Noël. et puis un très bon week euh, et qu'on se retrouve euh, dans la paix la semaine prochaine incha allah nga xam ne yëpp dañu ko fas euh, bu jullit beeg bu catholique bi. Mhm. yàlla na suñu borom nangu ñaan yëpp c'est le plus important n'est-ce pas. Mhm. voilà jërëjëfati. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup à tous de nous avoir suivis j'en profite pour saluer passer un bonjour à maman Tabara de Liberté 1 sunu a a Babara euh, Koné Liberté 1 euh, message bi agsi na ci man maa ngi la ciy sant bu baax a baax di la ci gërëm ci cofeel bi euh, li ci des moom yàlla yàlla mottali damay profité di souhaiter joyeux anniversaire à Isma Ndiaye depuis Cameroun c'est de la part de papa Issa Ndiaye et de maman Aram Lay depuis l'Italie sa sœur Khady Lay Ndiaye ñu ngi leen di nuyu message yi danoo xaw a takku nag ñu ngi cee jégalu di nuyu bu baax a baax Barka Diop mu nga Louga nee na ma au oh Nico Sud FM neex na trop Babacar Diop ca Louga euh, Louga ñu ngi ñu faa dégloo ci 93 point 2 mooy fréquence su Sud FM foofee euh, ci réseaux sociaux yi message yi takku nañ lool aussi Khady Michel Keita merci euh, Djidiack Touré merci Toutou Diop Diagne jërëjëfati As Diakhaté jërëjëfati et As Diakhaté qui a d'ailleurs un, un anniversaire je pense voilà euh, salut Nico tey c'est l'anniversaire de ma fille aînée Magui Diakhaté Traoré euh, voilà le mien bu papa ak bu la Traoré ak Magui Diakhaté Traoré joyeux anniversaire à vous deux et j'attends ma part du gâteau au chocolat comme d'hab n'est-ce pas euh, également sur Facebook euh, Karim Diop sur Facebook ainsi que euh, Ami Collé Diop ainsi que ñi ci des ñëpp euh, di réagir ci euh, réseaux sociaux yi rawatina Facebook jamono ji je reçois plein de messages de joyeux Noël Adja Marème Niane jërëjëf Abdou Khadir Lo jërëjëf Lamine Koli jërëjëf maman Adji Lo la femme de Cheikh Ndigal Lo merci Tata Fa Diallo la femme de Ismaïla Lo merci voilà je suis gâté joyeux beaucoup à tous qui me souhaitent joyeux Noël partout jamono euh, yi je reçois vos messages de la Suisse également de Suède euh, de la Côte d'Ivoire ainsi que du Burkina Faso l'association des Sénégalais de Bamako au Mali parce que aujourd'hui nga bëgg ko nga bañ ko Noël parce que c'est le cas n'est-ce pas merci et joyeux Noël à vous tous où que vous soyez qui que vous soyez c'était un réel plaisir que de vous accompagner un grand merci lui aussi euh, voilà moom xam na euh, man xam na oustaz Maodo Faye xam na euh, vala yàlla na yàlla def jàmm parce que am na solo bu baax baax kon monsieur Baye Oumar Gueye également ainsi que toute sa famille ñu ngi leen di souhaiter un joyeux Noël ainsi qu'un bon réveillon n'est-ce pas merci à vous tous qui nous avez suivis euh, n'oubliez jamais viser la lune c'est important bonne journée bon appétit heures euh, le journal en français heures le wolof et puis heures Abdoulaziz Koulibaly pour le meilleur de la musique internationale d'ici là euh, passez une très bonne journée restez avec les programmes de la première et encore une fois joyeux Noël ci darajay xadiisu yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa rahman ci daraja ay ak masaayix yi yàlla maynu jàmm ju mat sëpp maynu dund bu mat sëpp maynu ndox mu mat sëpp maynu teranga bu mat sëpp maynu jàmm ju mat sëkk may nu pàcc yaakaar ju mat sëkk may nu wér gu mat may nu wérle gu mat may nu dund gu mat may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla